muy eh, li Tahirou Sarr daal di wax eh, tey Ousmane Sonko eh, ni ko woon du dëgg daal di génne ay chiffres moom nag tey ci conférence de presse am daal dina démentiraat ki nga xamante ne mooy Ousmane Sonko moom dem na sax ba naan li nga xamante ne tey ñooy étranger fii ci biir réew mi li suuxal suñu économie réew ca la bokk li suuxal leneen ak leneen ca la bokk. waaw <laughs> Tahirou sacré Tahirou donc wax ji xam nga lan nga ci jàngat. luñ ciy jàngat. mooy président Ousmane Sonko comme ni ko ni ko ni ko euh, Barthélemy Dias waxoon ay jamono. Hmm. Barthélemy Dias dane woon Ousmane Sonko n'est pas un politicien c'est un homme politique. Hmm. te wax na dëgg. lu tax Barthélemy Dias ne ñenn ñooy politiciens yi comme ay Macky Sall ak ñoom parce que ñoom nee nañ ci école de parti lañ leen formé mais Ousmane Sonko li mu am li mu ñëw jaaru ci benn école de parti. dafa mhm. ñëw suñu borom may ko lim may mhm. mu am yenn capacité yoo xam ne kenn ci ñoom amu ko mhm. mu nekk un homme politique ma doole ci un homme politique qui sait démasquer ses ennemis privés comme publics mooy Ousmane Sonko mooy Ousmane Sonko oui comment comment ses ennemis ñëpp xam nañ leen comme ay Macky Sall ñoom ñëpp publiquement xamoon wane woon nañ ne ay ennemis euh, Ousmane Sonko lañ même Barthélémy Diaz faisait partie de ses ennemis privés

daan mhm. toog di wax lu baax si Ousmane Sonko. Mhm. ne Ousmane Sonko du seen morom ñoom acteur politique yëpp di ko di wax ci moom lu baax. ba d'ailleurs sax même coalition Diomaye président bi xam ne moo tax ñu jël réew mi euh, moom si la bokk moom Tahirou Sarr. Mhm. te tey confirmé na ne mu ngi ci ba léegi génnu ci. donc nekk bi mu ci nekkoon. boo déggee boo seetloo sax bi biñ jëlee réew mi. bi président Diomaye ak euh, président Ousmane Sonko jëlee réew mi. ñu bari ñu ngi doon wax Tahirou Sarr dañ ko war a nommer tel ministère. wala mhm. tel euh, nu mu euh, direction générale. Mhm. mais yooyu yëpp boo gisee li tax amul parce que président Ousmane Sonko dafa am lu mu xamoon bàyyi leen ci biir. li mu xamaloon bàtt la xamaloon Tahirou Sarr donc lu bari xamoon na ko dafa bàyyi Sénégalais ci biir bëggul leeral lu bari mais mhm. lépp lay xam. xamoon na ne Tahirou Sarr mii li muy woote dëggul ci moom dafa la bëggoon. lu mu bëggoon attaché wu si passif def lu tu ba xaw am benn poids électoral bu koy permettre un bon jour mu génn ber daaray boppam malgré am na mouvement nationalisme mais pour mën a amaale xëccaale ñu bari ñu nekk passif pour bés buy dem ba fësal carrément ne génn na ci coalition bi. Mhm. mën a am ñu mu yóbbaale. je boobu yëpp président Ousmane Sonko xamoon na ko. moo tax mu mhm. bàyyi woon Sénégalais ci biir. Mhm. comprendre tey jii li muy mouvement nationaliste bi muy woote Ousmane Sonko xam li mu daan wax yëpp mais amaana lim ci mujjee wax ci côté guinéen yi xëy na loolu moo laajoon leeral moo tax président Ousmane Sonko leeral ko dem. indi ay chiffres. te président Ousmane Sonko dem ba mu koy leeral. Mhm. pourtant <laughs> Tayiru kenn tuddul turam moo moo ëppal rek mais ba léegi. président Ousmane Sonko tuddul sax turu Tahirou. mais yenn yenn affaire yi boo ko waxee si buñ la tontuwee da ngay xam ne yow la ñuy waxal. déglul xam nga xam-xam moo mel noonu xam-xam. Hmm. tey booy waxtaan si ay secteur mhm. ba am si domaine booy yegg si. faaw nga leeral domaine boobu. li nga ci fas yéene def te loolu moo amoon dem dem président Ousmane Sonko discours mu ngi nekk 43 minutes 36 secondes. 43 mm-hmm. minutes. 36 secondes la wax. bi muy wax muy concentré wu ci pôle Dakar parce que pôle Dakar moo ko taxaw na jóg. Mm-hmm. mu ngi expliquer Sénégal ne 40 n'est-ce pas mu ngi nii 46 pour cent n'est-ce pas de la richesse. Mm-hmm. nationale ñu ngi ko basé wu foofu ca Dakar. di expliquer déséquilibre territorial. di ko expliquer di expliquer ëpp n'est-ce pas culturel bi ñoom li ñu fa fas yéene gën a dooleel. Mhm. ba muy joxee exemple Léopold Sédar Senghor bi nga xam ne culture daf ko mos a valoriser. maanaam di expliquer ci xam-xam bu ko yow boo koy déglu réligieusement li yokk ci ci yow ci xam-xam ak information yi ngay jot am ne lii lañ fas yéene def Dakar moo amoon importance mais dañoo dem ba toll ci benn moment boo xam ne falee mu am lu mu leeral te li mu doon leeral nekkul leen lu dul nationalisme ak patriotisme. parce que tey jii soo ñëwee ci Sénégal gi xam ne. Mhm. pays de la teranga mu nekk pays de l'hospitalité. maanaam pays de la teranga. Mhm. ñun ñëpp xam nañu on est ouvert. Sénégal dafa nekk pays bu ubbeeku. Mhm. boo xam ne dafa mën a dalal ay nit. rawatina dalal sa mbokk. parce que waa ginee suñu mbokk lañ c'est important tey jii ñu ci bari ñun dem nañ ba famille jaxasoo ba amaana sax des fois ñuy juum si sant yi naan telle personne ni mu sant que du dem ba jaxasoo tey jii ñu ci baari seen kër am na ñu fa nekk ñoo xam ne amaana bu fekkoon da ngeen bëggoon a génn ñoom ñëpp sénégalais yi de bon temps yi fi juddoo sax duñ ko nangu. c'est ça ndax niñ demee ba doon benn. Mm-hmm. kon tey suñ gisee benn nit buy woote leneen di woote ne daal de façon dañu war a def lépp concentré wu lépp ci sénégalais yi de bon temps. éloigné la loolu ñooy dafa ñaaw. maanaam nationalisme bi muy woote moom nationalisme sax à un moment donné nekk la lu baax mais moom bi muy wax ni baaxul. bii muy woote Tahirou Sarr bi muy woote ni baaxul du sax baaxul non buñ ko appliqué du baax tey ji nationalisme ak patriotisme démb président Ousmane Sonko daf leen xamal carrément ni ñun buñ sañoon dañuy nekk ci dynamique gu parce que moo gën mhm. parce que na am na feneen boo xam ne mën na faa yóbbu ci yenn danger yoo xam ne soo ci duggee rek réew mi di nga am ñëw fi génn wala nga bedd ñenn ñi te du ko jàpp dina am ñu gis seen bopp ñu gis seen bopp bu baax te ñu ngi tey jii su ma jëlee exemple Romain Romain Gary mu nekk écrivain foofu ca France. Mhm. xam nga la loo lu mu wax. dane le patriotisme c'est l'amour des siens. le mhm. nationalisme. Mhm. c'est la un des autres. Charles de Gaulle. mi ñu xam ca France xam nga lan la waxoon. lu mu wax. Ah, ok mu ne le patriotisme. c'est aimer son pays. le nationalisme c'est détester celui des autres. kon nañ jël patriotisme. nationalisme mmh. c'est détester celui c'est-à-dire le pays celui des autres dëkku jàmbur attention oui. le nationalisme peut même conduire à un sentiment de xénophobie de à un sentiment de xénophobie mmh. c'est-à-dire à une hostilité n'est-ce pas de principe envers les étrangers Mhm. voire une intolérance envers les étrangers mhm. maanaam yow doo mën a dangay dem ba doo mën a tolérer sax étranger yu fi nekk nii boo sañoon dañuy génn réew mi te ku déglu Taïru Sarr xam ne loolu lay prôné. accepté wu leen. accepté wu leen surtout guinéen moom da cee taamu sax guinéen yi. waaw te loolu baaxul ci réew. du ay guinéen kese ñoo fi nekk pourquoi. mu ñoom rek ñoo fi nekk démb président Ousmane Sonko wax na ko Sénégal gi ñaata étranger ñoo fi nekk. deux cent sept mille si je ne me trompe pas deux cent sept mille sept cent quatre vingt onze ñoo fi nekk comme étranger soit un virgule un pour cent si dix huit millions d' habitants la la mën a mm-hmm. yàqal est ce que ñoom dañ un pour cent dafa am lenn loo xam ne mën na ko yàq Sénégal am na ñu doon wax ne trois millions la ñu fi waxuñu dëgg am ñu naan deux millions mooy ñi jàppul chiffres yi mm-hmm. dernier recensement bi xëy na dañ koo jàngul mm-hmm. jàppul chiffres di jaxase pour cent lañ fi étranger yi un pour cent lañ fii ci Sénégal ñooñu lan lañ mën a yàq réew yàq luñ ñu dara au contraire ñoom sax dañuy participer si l'économie si si économie bu Sénégal mais amul lenn loo xam ne dañu koy yàqal donc am na yenn kàddu yoo xam ne boo ko yëkkatee mhm. da ngay ñaawal da am looy indi ci réew mi xàjjale xaaj ak seen nga fi indi parce que soo ko waxee rek ñu bari dañuy gis seen bopp te am comme xénophobie bi mu wax bi ma wax ni suñ fa yeggee booboo gën a ñaawal te lii nationalisme da koy indi mhm. maanaam nga dem ba yow ñi xam ne bokkoo ak ñoom pays maanaam nekkuñu ay sénégalais de bon temps nga dem ba leen ni maanaam seen nekkin ci réew mi sax bëggoo ko soo sañoon ñoo ñëpp ñu génn moo tax Tahirou Sarr boo gisee day insister si carte de séjour yi da ci insister si carte de séjour yi. te président Ousmane Sonko ko ba wax na leen lu leer nee na dinañ ñu ngi ciy liggéey dem ba à un moment donné ñu mën reconnaitre étranger yi nekk Sénégal ñu mën leen reconnaître. Mhm. ba dem au-delà de ça mu dem ba xamal ñu carrément ne ñoom ñu ngi liggéey ci benn plan d'action par rapport ak wàllum visa parce que tey jii mënuñu concevoir ñun exemple bu ñu bëggee dem France dañuy laaj visa. Mhm. français bu waree ñëw fi dafa laaj war a laaj visa. te président Ousmane Sonko nee na yooyu yëpp ñu ngi ciy liggéey. mooy yoon sax maanaam ñun bépp pays boo xam ne bu ñu fay dem dañuy dañuy def demande de visa. ñoom it buy ñëw ci suñu réew dañu dañoo war a def demande de visa. Mhm. comprendre mais wax ji yëpp xam nga ci jàng. lu ma ci jàng. mooy président Ousmane Sonko dafa mën a démasquer ennemi. Tahirou Sarr mm. ndekete li mu doon nekk temps yëpp di défendre ay depuis des années. wala mhm. depuis des mois muy jéem a défendre Ousmane Sonko gëmu ko. Mhm. nekkul woon lu mu gëm. tey discours bu cinq minutes bu ko président Ousmane Sonko bu mu wax si nationalisme ak patriotisme mu gis boppam. parce que xam foofu lan lay wane. lu muy wane day wane ne yow yéene gu bon nga amoon. parce que li président Ousmane ko wax démb am njàngale la. Mhm. am njàngale gu laaj compréhension. alors que moom Tahirou Sarr la mu jàppoon ak la mu doon wax ay erreur la la mu doon wax baaxul. kon bu président Ousmane Sonko waxee ba pare da nga cee war a jàng nga génne ne man comprendre wu ma woon ne nii la na nationalisme ak patriotisme ndekete nii la fa demee. est-ce que ñëgul fi mu toll la dafa ñëg ñëg moo tax tey mu def conférence de presse. Mhm. si cinq minutes yoo xam ne président Ousmane Sonko wax na ko si nationalisme ak patriotisme. Mhm. yow nga gis sa bopp ba def conférence de presse. fi mu ne lu mu liggéeyoon ci mois yi passé yëpp. yàq na ko moom moom Tahirou Sarr li mu liggéeyoon yëpp yàq na ko. parce que dem na ba ak soxoram ndekete jalousie gi mu amoon envers président Ousmane Sonko mu ngi woon ci xolam tey mujj na koo génn parce que bu demee ba koy taxé de. menteur day fen day nangam nangam nga xam ne di waxtaan ak moom bëgg sax à la ñu fay ñu fal ministre wala ñu fal fal la DG ndekete loolu lépp li tax amul loon mhm. mooy gan gi dalaa xamoon bàyyi la ci biir mhm. léegi dañoo dem ba ci biir gan gi démasqué la mhm. si cinq minutes nga wane yow sa jikko ndekete yow sa vrai visage mu ngi nii ñu kenn ñun tailleur mi daan gis kooku du tailleur ñun tailleur ñu ngi koy door a gis tey d'accord vrai visage bi moo feeñ tey. tonton Fall wax na ci wàllum promotion ne Ousmane Sonko parfois daf leen a a wax. waaw waaw ko weddi. Hmm. angle dafa neexul. Hmm. la vérité dafa neexul dégg. Eh. te président Ousmane Sonko réew mi moo ko mas a hmm. te lépp lu mas a wax. ay nit taxaw weddi ko histoire daf koy jox raison. la preuve bi muy wax ci affaire Mamour Diallo. àdduna bi yëpp Sénégal gi yëpp weddi ko. Mhm. demal ba remontel ba ay su la neexee 2019. observateur bi xam ne tey moo publier dëgg gi Ousmane Sonko waxoon. Mhm. ñoom ñu publier ko jamono ko son Sonko waxee ñoom dañ koo nié. Mm. tey rek ñoom ñoo ko confirmer mhm. maanaam Ousmane Sonko dafa nekk en avance sur nous. d'accord maanaam li muy yëg wax ko ñun ñu koy weddi da toog ay deux ans trois ans quatre ngay door a xam ne c'est la vérité. maanaam nit nekk ci tey moom ma nga ci suba. mu fekk gis na xam li li muy xam bu bu yàgg ñu ni duñ ci bàyyi xel duñ ci bàyyi xel ba muy wax ci Prodac ñëpp naan ko waxoo dëgg waxoo dëgg wax tey histoire jox na ko raison mm-hmm. Mamour Diallo ba mu ciy wax du dëgg jox na ko raison prix mm-hmm. du ba mu wax 2018 du dëgg jox nañ ko raison mm-hmm. leneen ak leneen ak leneen jox nañ ko raison maanaam dafa nekk homme politique boo xam ne dafa man liggéeyam mooy lan politique bi muy def jàngu ko fenn mais suñu borom moo ko def ci moom ba ku mu bëgg éliminer da lay éliminer bi mu bëggee éliminer Macky Sall moo éliminer Macky Sall li tax mu éliminer Macky Sall. moom moo def le tout ba am la confiance nest pas des Sénégalais ba Sénégalais yi gëm Ousmane ko loolu lu mu liggéey la gannaaw may suñu borom loolu lu mu liggéey la. Mhm. confiance mënta weesu yow ñu dem ba ne yow mën a bokk ci élection yi. nga joxoñ nit ñu votel ko. Mhm. comprendre nga jaaree fa élimine sa adversaire principal muy Macky Sall ngeen def ay combat indirect ngeen def ay guerre idéologique mhm. nga éliminer ko. ba mu exilé boppam fi mu ne mënul ñëw ci réew mhm. ñu boole lax Amadou Ba nga jël sa plainte boole ko wax Ba mëne campagne bi éliminer ko. Amadou Ba amul lu muy prouver fii parce que da nga ko éliminer ba fu mu wax kenn dootu ko déglu. nga jóge ci loolu. jóge ci loolu dem ci lan. jël ay ku mel ni Khalifa Sall. waaw daanaka yóbbu leen à la retraite. jël ku mel ni sa Seck yóbbu leen retraite. te loolu lépp Ousmane Sonko Ousmane Sonko rek moom laay wax nii ñooñu ñëpp moo leen yóbbu la retraite ba pare démasqué. ay boy yu jóg di góor góorgóorlu nga démasqué leen. Mm-hmm. Barthélemy Diaz doon woote ne sa doomu ndey la nga démasqué ko xamal sénégalais ni kii ennemi privé la woon ndekete mu nekk maire gannaaw suñu borom yow yaa tax. Mm-hmm. mu dem ba mënatul muñ loolu nga démasqué ko wane na kii du nit ku ñu war a wóolu wane kii amul xam-xam sénégalais yëpp dem ba xam loolu xam ne kii criminel la. Mm-hmm. ñun ñu xam ko gannaaw suñu borom yow yaa tax. ku yeneen ñëw di taxaw di wax. ku mel ni Bougane Gueye nga wan Sénégal yëpp parce que Ousmane Sonko moo xam ne mooy nit koo xam da da lay mettre devant le fait accompli mm-hmm. maanaam da lay nga génne sa vrai visage ñooñu ñëpp ku ci wax nga xam ne kii amul xam-xam kii jarte wóolu kii mënta yor Sénégal kii mënta yor sax propre entreprise am mm-hmm. ba dugal boppam ay keneen ñu ay ay kii nu mu tuddee Pape Djibril Fall nekkoon journaliste bu ñëpp nawoon mu daan toog ci ay plateau def analyse yu pertinente dugg ci langue politique bi commencé wax na ko sul noonu mm-hmm. am noo comporté moom ba muy obligé di mentir di créer ay wax yu amul ba ñëpp démasqué ko tege ko nële ku ci mel ni ay Thierno Alassane Sall mhm. ñoom ñëpp tey kan la mujj Tahirou Sarr te ku mu ciy waxal jamono yooyu du tudd tur mais su waxee nga xam ne yow lay waxal mhm. te mooy koo xam ne mooy fi mu ne mooy dicté ton bi ton bi politique bu Sénégal moom moo koy dicté Ousmane Sonko lu mu bëgg ñu wax ko loolu la ñuy wax tëjuñu fi Bougane Gueye sénégalais yi doon wax doon intéressé wu interrogé wu ci tëju Bougane bi tëju Bougane bi emprisonnement bi si même jour mu woo Amadou Ba débat mhm. ñu fàtte emprisonnement Bougane Gueye di wax ci débat bi moom wax Amadou Ba mhm. parce que moom mooy dicté ton bi fàtte nañ Bougane mhm. bu yàgg mu dicté ton loolu lu mu maanaam lu mu bëgg ñu waxtaane ko loolu la ñuy waxtaane su ma la déggee kon Ousmane Sonko daf leen di manipuler su lu xanaa déggoo keroog wax naa ko fii benn jour nee naa la Ousmane Sonko buy def discours cinquante minutes am na deux minutes yoo xam ne faaw mu ñamal leen ko bàyyi leen ko ñoom ku nekk di ko xëccëw deux minutes yooyu noonu ñoom bu ñuy wax discours une lañ koy def moom la ñuy campagne moo tax si loolu la leen di démasqué une minute lay wax démasqué leen ñoom ñëpp moo tax ma ne ku mu bëgg lu mu bëgg ñu waxtaane ko loolu la ñuy waxtaane ku mu bëgg démasqué te lay démasqué mhm. si benn verbe mën na si démasqué ku mu bëgg comprendre temps yi lan lañ doon wax cool Barthélémy Diaz mhm. Diaz lañ doon wax ba keroog bi ñu koy woo ba mu koy woo xajoo balcon tey Ousmane Sonko la neex démb mu am lu mu wax ci nationalisme ak patriotisme keneen gis ci boppam kooku fi mu ne ñu ngi koy wax. Mhm. ñu wax ci cas boobu. Mhm. lu mu bëgg ñu fàtte ko dañ koy fàtte. ci politique bi li mu bëgg ñu waxtaanee ci politique bi loolu la ñu waxtaanee ci politique moom mooy dicté bi. moom moo yor commande bi. moo yor commande bi. ko neex lay bës si politique bi fii Sénégal ñu waxtaanee lool. dëgg la te ku mu neex lay démasqué. Mhm. moo tax koo leen gis faluñu ko. moo xam moo xam nekkul DG wala nekkul ministre. ñaan kii pourtant dañ ko waroon a fal wala waruñu ko woon a fal wala nangam nangam fekk nu Sonko am na lu mu xam lu mu waxul kenn téye. Mm-hmm. lu mu loolu leer na tey ci tey. am na solo am na solo Cheikh Tidiane bu baax a baax dama la dégg léegi nga wax baax Barthélémy Diaz ci moom sax dugg si ak tontu euh, Fall dañ doon wax ni programme programme mbaax sax nag daal dina indi ab programme bu yees bu bees euh, bu mu tuddee euh, Sénégal. Sénégal nag daal dina ko expliquer fii ca TFM nee na S bi social lay daal di signifier E bi équitable N bi li nga xam ne mooy E enrichissant lay daal di signifier G bi gagnant gagnant A bi ambitieux lay signifier euh, L bi loyal moom nag toj na ko faram fàcce ko am na sax ñu ko ci encouragé encouragé bu baax bari sax Barth dafa maîtriser lu muy wax moo tax euh, ñu ngi ni Barth amul bac te moom teg na programme expliqué na ko sans mu takk ay lunettes sans mu yor feuille am na ñi nga xamante ni takk nañu ay lunettes wala sax takkuñu ay lunettes amuñu bac te lii Barth tey expliqué ñoom amuñu xam-xamu expliqué ko loolu na ko ci jàngate ak lan nga ñu ci mun a wax. Ah, am na bala maa àgg loolu am na.